bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa rasulina wa nabiyina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa sahbih wa man tabiahum bi imaanin wa ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi di mbokki jullit yëpp assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala ak i mbaaxam la dellu seete ci seen jotaayal bopp di dëkkandoo jàmm ca gën muy jibee fii ci Safina FM 98 point ci barab bu tedd bi ci Scat Urbam di barabu Mawlana Cheikh Al Hadj Umar Fuuti radiyallahu taala anhu di leen nuyu di leen ziyaar di leen baalu àq di leen baal di ñaan yàlla subhaanahu wa ci mbaaxam yàlla nañu boole baal bàkkaar yépp yi ñu yëg ak yi ñu yëgul yi ñu tayul tay ba ci baal nu ba baal nu bàkkaar yi des ci sunu kanam te defaguñu leen li des ci sunu dund mu néew mu bari te yàlla na bari lu fiy bàkkaar ak lu fiy tooñ yal na nu yàlla subhaanahu wa taala dajaleel sunu yu baax yeeg sunu yu doy waar yeeg yépp defal nu ko benn dank rekk dugalal nu ko ci mbaaxu yonant bi sallallahu alayhi wa te xoole nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wa nu géew ci darajey boppam di tàmbali nuyoo bi ak ziyaar bi fañ ko daan tàmbalee te mooy sunu kilifa gu tedd gu mbaax gi fii ci barab bii imaam El Hadji Thierno Hamid Yoroban di ko ñaanal yàlla moo tëlil koy yéeneem. ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañu bokk fekk lépp te tal ko jëriñoo lépp tàmbaleeg ñun àdduna ba kër yàlla yàlla boole nu lépp ak sunu directrice bu baax bii di madame gànge di alxaaja ñimma ba moom it di ko ñaanal yàlla moo tellil koy yéeneem ci safina ak ci fa tabaarakallah sunul xaalixiina yitte yi ci des yëpp télévision beeg rajo beeg yëpp yal na yàlla mottali yéene yi ba ñu bokk fekk lépp. su ko defee ci kàttanu yàlla subhaanahu wa ak mbaaxam sunu jotaay bii nu weesu jëloon waxtaan wa teg ko ci kaw fàttali. maanaam fàttalente ak laayante biir gi lañ ca gën a jàpp bokkoon na ca sunu boroom subhaanahu wa kenn mënu ko weddil ay xéewalam ndax fi mu jaar ak ñun ñëpp waxoon nit fa tabaarakallah asnul xaaliqiina nu kilifa booleek di sang war a mën a melawoo su ko defee ñu xam ni rekk te cee ni booleeg yëg fu ñu toll ni am na ko am am na ko am de te am na kuy amal te du kenn ku dul buur bi di Mawlaana tabaraka wa taala muy kii fi nekk di moom moomu di moom subhanahu wa bu ko defee ñu waxoon tàggatoo woon ci sang di kilifa sëriñ dib sang ñu waxoon ni war naa yore fa tabaarakallah asnul xaaliqina wala mu ame ñeenteel bi jikko ca jikko yenu doon xaj limte mooy jikkoy xaj wax ji nag du neex a dégg waaye jikkoy xaj ci naka ñu waxoon ni lu sa kër neex neex neex neex xaj bi toog ca kër ga ba yàgg mu gàddaay kër ga génn ko bu ko génnee ba dem dootu fa dellusi ba ba muy dee kooku ci jikkoy xaj la bokk kon ñu waxoon ni sëriñ di sang fa tabaarakallaahu tey xal di kilifa moom it bu xoolee àdduna bi ba yàgg mu gàddaay àdduna jublu ci boroomam subhaanahu wa taala àddina waratu ko jaral lenn luy tax muy sàggane yàlla subhanahu wa taala di jublooti àddina ndax lan du doon di fii ba faw du fii de du doon di yii ba faw du yii de du doon di ñii ba faw kon du fii du yii te du ñii dëkk boo boodul amee nag juróomi yëf te sa ñaar yi nga amul yu dul ñoom di fa jeexe lañu waxoon ni da ngay bàyyi xel benn ba nga amul lu dul moom ca fa nga jëm te du fa jeex ba faw lu fay wëy lay doon ñaar yi nga fi am nag te ñuy jeex mooy dund bi ak dund gi ñu waxoon ni ab dund bokkul ak dund ñu ni woon bu dee ab dund mooy li ngay jëfandikoo di ko dunde ngir baaxale ko sëg dund mooy ab dund bu dee ak dund nag mooy ki fi nekk di dimbandikoo ruux ngay yëngal sa yaram di dem ak di ñëw bu ci nekk fii lay jeexe ñu waxoon ne nag boo muusee di ku ànd ak xelam dangay jël dund bi ginnaaw bi nga ko sellalee nga yëwanalee ko dund gi jël nag dund gi la ca ëpp nga jaamoo ko yàlla subhaanahu wa taala ngir mën koo baaxale sa benn ba ngay fekki te mooy dund gadul jeexi te mooy ëllëg fa tabaaraka allah axsanul xaaliqiina di rekk la eh, isa bnu mariam alayhi salaam waxoon ni dund gi te mooy lekk gi nga xam ni maanaam dund bi di lekk gi ngay lekk pour baaxalee ko dund gi pour yëwanalee ko dund gi dund bi te mooy lekk gi bu naree yàq dund gi jaratu ko ndax dund gi moo tax ngay soxla li ngay lekk pour mën ko yëwanalee dund gi ngay dundee ni fii ci àdduna ba mën a dem kon bu naree yàq dund gi ci feebar ak yu mel noonu jaratu ko su ko defee it xamee ci déggee ci ni piis bi ngay sànge yaram wi lu mu cher cher cher cher cher yaram wi ko gën a tedd fuuf di ko sañse kon bu fekkee ni bala nga koo am mbete nga defe lu yàq der bi soog a am loo sànge der bi kon jaratu ko fafal def yaramu neen rek ñu waxoo nit ni am na juróom yoo xam ni kenn du ko fi am su ko defee teel koo xam noppal sa bopp bu jëkk ba mooy ku ne war nga xam yëg ni jëkkoo fi gënoo fi doo fi mujj doo fi mën te doo ko jot loolu mooy lan jëkkoo fi de maam sunu aadama alayhi salaam jëkk na fi ba noppi gënoo fi it ndax yonent bee fi gën alayhi salaatu wasalaam te gën na ba noppi mënoo fi omar a mën ci lislaam àdduna bii ñu nekkit doo ko jot mukk te doo fi mujj ndax yàlla fiy mujj subhaanahu wa yii juróom nag boo leen teelee xam noppalu teel a xamit ñeenti yii nga xam ni ay ñeenti teele yeñu teele ñeent yi nga xam ne lu war a teel la góor gu baax di góor gi aatumaan ku daan dawal taxi la ndeysaan yàlla na ko yàlla dolli leer ki yërmandeem moo tudde woon takseem oto école boo ko gaaree ba dugg wax ko fa nga jëm muy dem ak yow ba ba ngay àgg mi ngi waxtaan ak yow naan oto bii du taxi auto école la daara la daal maanaa daan na wax ni ñeenti teel yi ku leen teel a def doo ko rëccu de teel a jub lu penku boo dee góor teel a jël jabar teel a béy bësi ak teel a tàggoo dof nee na ñeent ku leen teel a def doo ko rëccu mukk teel a xàmmee it ñeent ñi lay romb nee na bés bu yàlla sàkk bëccëg bu ne ñuy rombante di waaxu ba jant bi so ñu tëdd ba ëllëg nee na su ko defee ñu nekkaat ca rek waaxu la ñuy def di rombante rek te ñeent ñii la mu ne ñeent ñooñu nag di waaxan waaxu rek di dem ak dikk ba jant suñu tëdd bu ëllëgee ñu dellu ca bu la fekkul jox sa bopp yàlla subhaanahu wa taala di séddu ca seen fitna ya mujj di rombanteeg ñoom di waaxu ni ñoom ñeent ñoo ñooy ñan ki romb di waaxu di wuti ku mu nax am na koo xam ne bu ne cëpp ay tànkam yewoo cay lalam la muy jëkk xalaat mooy fan lay jaar ba seeti ku mu nax rombal ak waaxu di wuti ku mu nax ak ki romb di daw ku ko nax ndax dañ koo naxoon démb ak ki la romb di waaxu di seeti ka naxoon démb ak ki romb di waaxu di nëbb ji mu naxoon démb nee na ñii ñeenti waaxukat nee na ñoo fi rombante ba jant so rek ñu tëdd boo fexee nag ba teel a xàmmee yeneeni ñeent Jibril Samba a Mbay ràbb usmaan Seen caatum baay ba yal na yàlla dolli ci ñoom seen njéggal na ko yàlla dolli dollee dotti ci ñoom niiru yërmandeem bi jaahi si jinaa Muhammadin alayhi salaatu wassalaam boole leen ko bépp jullit góor gi Usmaan moo daan wax ni yàlla mën na laa musal ci ñeenti waaxukat yooyu ñu ne ko ñeenti yan la mu ne li la ko jaral benn bàngook te jaru ko ñaareel bàngook ak li la ko jaralul ñetteel bàngook te jar ko ñeenteel bàngook fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiina nee nag la góor gu baax nga waxoon di góor gi Yusufa ngoom yàlla na ko yàlla dolli leer nee na kuy jeex tàkk nekk fuy jeex tàkk yore fi yuy jeex tàkk séq ko ñuy jeex tàkk soo amee xel te muus jëlal sa bopp ak sa yëf jox ko sa boroom bi dul jeex du jeexle du yàq du yàqu du yàqule fa tabaarakallah asnul xaaliqiina su ko defee mu dencal la ko fa yàq yeggul te doo fa yàqoo te doo fa yàqule nee na ku am xel te muus noonu ngay doxalee Baay Alxaaji Ibrahima Saaxo yal na ko yàlla dolli leer ak yi ngërëm daan wax ni xel baax na di ca seet lu baax na ba xàmme xàmmee ca ni yàlla mi nga yàggaloon lool laata nga ñëw àdduna te àdduna bi doo fi yàgg léegi nga génnaat ko delloowaat ko ca yàlla yàggaat fa lool mu yàlla mi nga yàggaloon lool te naraata yàggaat ak moom lool ci biir bàmmeel yeeg barzak fan yu néew yi ngay am ak nit ñi bu mu la jaral sa diggante ak moom ndax nit ñi jaruñu ko na ko yàlla rekk jar subhanahu wa taala kon sang di kilifa sëriñ dib sang war naa amee ñeenteel bi jikkoy xaj xaj ni mu màndoo ni la dëggoo du baw mukk lu mu gisul du fen moo tax lu mu baw rekk teg na ca bëtam bu gisul lu mu baw jàpp na njàmburam yàlla subhaanahu wa taala indi fi nag ñeenti yëf te bëgg nu jariñoo ko rekk moo tax mu indul nu ko waaye du lu ko war subhanahu wa ndax yàlla dara waru ko lu dul nekk yàlla rekk subhanahu wa ñeent yooyu it benn bu ci nekk wax na ak yow benn bu ci nekk ci ñeent yooyu wax nañu ak yow ndax nga mën a topp yàlla subhanahu wa taala te bañ leen a topp su ko defee ñoom ñu mën laa topp na mu soobee yàlla subhaanahu wa mu di li wolof di wax muur ak wërsëg alal ak jal bi lu ci nekk wax na ak yow muur moo jëkk a wax ni la yow jaam bi yow laay waxal man la muur jaruma ngay gëma di yàlla jaruma ngay ñàkk fayda ndax man muur déedéet fu ma mën di nekk nag yàlla subhanahu wa taala mi ma moom moom la dina ma jële fa ma ne indi ma ci yow teg ma ci sa loxo te kenn du ca man dara kon kay ngalawaay yow nit su ma duggee ci say loxo man muur bu ma la nax mukk ba tax nga muur sa bokk yi sa xol bi nax man muur mbaa nga muur leen sa bëñ ji mbaa sax sa xar kanam nga bañ koo ubbi ci ñoom duma ko jarde nax bésa ngi ñëw di boo xam ni ñooñu nga muuroon sa xar kanam gi nax man muur leen sa xol bi ndax man muur leen sa bëñ ji ndax man ñooy ñëw muri la lañ la ba mu neex leen ñu soog laa muuralaatal seen bopp ca na mu leen neexe nag génn la ci sa kër gi muuri la ci biir suuf si dellu muur ma man muur muur jongoma yi nga fi bàyyi ndéem góor nga ba mu neex leen ñu muri ma miraas la muri sa jongoma yi muur loo leen ñu mujj di muuri ñeneen ñu muuralee leen ñeneen ñu mujj doon di muuru ñeneen kon man muur bu ma la jaral mukk di yàlla yow jaam bi xaaree ma sa sago rekk te bu ma tax ngay ñaaw du ko mat te du ko jar ndax àdduna nekk na di kër goo xam ne góor gu Ousmane yàlla na yàlla dolli ca ñoom leeri kiy ngërëm moo daan wax ni ndën la dafa mel ni ndën lu yàlla tàcc ci dugg pénc mi kuy dund ku ne sa loxo ngi ci biir kuy dund ku ne sa loxo ngi ci biir doo suur te da ngay jóg te dafay jeexit te nee na nag luy jeex nga tiim ko lekkal lekkin bu jekk rekk xam ni gor surtout kuy dee <clears throat> waroo ñaaw te lii nga tiim di ci lekkit waroo ca ñaawee kon lekkal bu jekk rek comme doo suur te di nga jóg lekkal bu jekk rek wërsëg ni muur ginnaaw wax nga yow sa bopp yow muur may ma it manit ma ñëw wax ak jaam bi wax ko may kan daal ko ni yow jaam bi yow laay waxal léegi wërsëgee wax ak jaam bi ni ko mën a wërsëg fas laa diw fas wu yàlla tàggatal boppam yabal ma fii may rëppatal nag di ak ci jaam yi ni man di leen gane ku may war nag te fekk mënoo nga war di nga tàggoog say bokk te doo àgg ci yàlla ndax may màmm ak yow te dama lay sànki kon mënala war waaye bul yem ci mën a war soo mënee warit na fekk nga war a war ba noppi nag nga soog maa war loo mën mën mën mën mën war bul ma war mukk te fekkul nga war war boo warul warit mën a war rekk nee na bu mu tax mukkit nga war ma ndax ca ngay sànkoo de loo war war war warit te fekk mënoo war boo jaabalee géey te booy rëppatal di daanu waaye boo mënee war teg ca war a ba noppi war boo jaabalee say bokk way la boo rëpptalee muy tabaski neex dagan boo toppee di bég am ca sa biir am ca sa yàlla su bés ba dikkee doo tarde kenn du la tane alal ñëw ni may leen ma manit man alal ma wax ak jaam bi ni ko jaam bi maay wax ak yow yow alal yow jaam bi di man alal di yow mi ma yor yor nga ma nag waaye xamal ni danga maa yor waaye moomoo ma kan mooma moom yàlla mi la moom moom ma moonu boole moom may jaam ni yow bokk ak yow benn borom bi yor ma nag taxul nga am ma ndax bari na lu jaam denc ñu naan moo ko moom te fekk moomu ko denc bu mu xamul ku mu ko fa dencal la walla ñu mu ko fa dencal bala nga may am man alal may lu la lew man alal mbete nga ma tuddalee sa bopp ci li nga yor te mooy nga gis gor su wërsëg wa néew te njomba ya bari nga yëkkati ca la nga yor ni ko am te fekk ba nga ko naan am yàlla rekk a tax su boobaa tuddal nga ma sa bopp ba nga nee am keroog nga ame loo dootul ñàkkati mu nga yàlla subhaanahu wa taala dencal la ko gannaaw bi mu la ko nangulee kon deel bare loo may tudd ci biir gor yi nga xam ni seen wërsëg néew na te seeni njomb bari na dee ma tudd ci ñoom lu bari su ko defee bés bu jal bi dee wax ak yow nga xam ni tudd ma rekk moo ko jar denc ma wóorul te woomul jal bi ni jaleñ ni topp leen ma wax ak moom maa des ci wax ji eey yow mii di jaamu yàlla bi ni man mana a jal bi jalla jalaaluhu mi ma jal nee na kenn duma ma jal jeexal ma bu ma tax mukk ngay jànni say bokk di leen jalu duma ko jar na la yàlla rekk subhaanahu wa taala di jaral ndax bésa ngi ñëw di boo xam ni dina yónnee yónnee bu bokkul ak nu kenn dul yónnee ndawam lu mat la di ndawam loolu ñuy wax malakul mawtu moom lay woo ne ko kaay demal ma ca kër diw nga wàccal ma fa léegi doon fa di gan te lu ñu la fa berndeele lu dul ruux ga di ruux ga ma la jëliloo bul génn kër ga bu la fa kenn yëgit te it bu la fa kenn gis ruy bu woyof bañ la doon jox di la ko sexal tax ñu téyel la sa bakken bi muy jali ndax mënatu ci dara lu mu ca dese ca wërsëg lu mu ca dese ca wërsëg noyyi ga moo koy yóbbuwaale lu ca dul sa wërsëg mu tuuru ndax mënatoo koo jariñoo jeex na su ko defee mu ne ko nga waxal maak ruux ne ko waxal maak ruux ne ko yàlla mi yónnee jumtukaay yi nga xam ni dama ko abaloon jaam bi te cër ya doon leen jariñoo na ma leen delloo balaa génn ruux daldi wax ak cër ya ni yéen ci déggkat boroom bi bëgg na ma génn te mbooleem jumtukaay yi ngeen doon jëfandikoo bëgg na ma delloo ko yépp bala ma génn man ruux ruuxee wax ak jëmm ci su ko defee bu ruux àddoon noonu daal ni ay ca tànk ci yow lay tàmbalee jox ma dox ma delloo ko te lu mu laaj ñu jox ko ko su ko defee tànk ne bàcc dammul foxojul waaye dootul jéggi buntu néeg bi ana gémmiñ làmmiñ mi ci biir jox ma caf ko la nga gënoon a bëgg bu ñu la ko sexelee dootul a saf dara ndax caf ko moom it dem na ca ko ko joxe woon te mooy yàlla jiitu ji la fa ani loxo jox ma téye loxo ni besax ca saa sa mënatul dàqal jëmmam ji weñ mënatul fomp sax futaq ana nopp jox ma dégg yi dem ba loo waxati du ko dégg ana làmmiñ mi doon wax it indi wax jox ma ma yóbbu làmmiñ wa damm dootul àddu booy waxit muy di la xool rekk dootul a tontu dootul a dégg ñu tekk rekk yàlla yàlla abaloon yépp di dem benn par benn ana bakken yow mi doon xeeñtu indi xeeñ lu gëtt neex neex neex dootul a xeeñ dara na xet ga dem na la doon tax nga yëg xet dem na su ko defee ruux bu togg waxee noonu jëmm ji ba mu delloo ko yooyu yépp lan lay mujj laaj mu ñu bët bët yow xool yaa ma teree génn de jox ma gis su gis demee rek ruux génn romb ko nag di wuy ji boroomam subhaanahu wa taala gis topp ca nag gis day toppi ruux moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni ku toogoon ci wetam keroog gaawal nga wàcceel ko mbari bët yi mu muuru ndax gis dafay topp ruux sallallahu alayhi wa su ko defee jal bi ni la waxoon naa la ko de ne woon naa la ki ma jal nee na kenn du ma jal jeexal ma dafay toog rekk ba mu sob ko mu jël ma jël la wàcc ña nga doon jànneek di leen jalu ñu jali la ba noppi waññeeku jaale la ba noppi nag jël ma man jal bi kon mbokk di mbokki jullit yi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yii di ci nii la ruux di mujj wax ak nit laaj ko yi mu doon jëfandikoo ci dundam yépp ba mu jeex mu jëlaat lépp delloo ko yàlla jëmm ja des fa ruux soog a génn wuti barsax yaram ñu waajal ko ci sang ak sang julle gasal ko bàmmeel denc ko ci biir suuf si ndeysaan sama oustaz bu baax ba imaam alxaaji mbayka yal na ko yàlla dolli leer bi mu tolloo ndeysaan ci jëm mag léeg nga dem fekk ko mu xaw a feebar léeg nga fekk ko bët ya xaw a metti léeg nga fekk tànk ya xaw a metti ma ne ko oustaz yow it del seetu da dem ci docteur yi ñu seetal la mu ne ma fenn laa dul dem benn docteur duma ko seeti jumtukaay yu dund yi ma yàlla joxoon daal liy jël benn par benn bu jeexee rek ma wuy ji ko parce que yal na yàlla subhanahu wa taala dolli ca moom ay leeram ak yërmandeem ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ko defee mbokk yi loolu daal fàtte fàttalente la ak laayante biir bu ñu doon defaat rekk dhakkir fa inna dikra tanfaul muminin la wax wax ko yonent ni ko del dëkk ci di fàttale rek ndax aji gëm joo xam ni tomb leeru ragal yàlla nga ca xolom booy fàttali rek muy xam di jariñu su ko defee rek ñu déggee ko noonu xamee ko noonu di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla antuloo sunu xol yi bi jaahi sayyidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam yal na nu yàlla musal ci xol yu gantu yal na antuloo sunu xol yi ba ñu nangul ko lii dëgg sawarloo sunuy cërit subhaanahu wa taala ba ñu mën koo jaamoo nu ko bëggee boole ca nangul ñu ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ji yépp daal li muy tënk mooy nit ki di jëmm ji na xam ni yi nekk ci moom te mooy xolam xelam ak cër yi ñett yi séddale ko boo bëggee dund gu teey boo bëggee dund gu yéwén boo bëggee dund goo xam ne ca la sa àllaaxira di defaroo xol bi xel mi cër yi séddale leen yàlla subhaanahu wa taala nee na maa la teralee xel mi kon dee ma ko xalaate xol bi it maa la ko sàkkal defal la ko kon bëggee ma xol bi xalaatee ma xel mi jaamoo ma cër yi nga delloo ma lépp bëggee ma xol bi man yàlla booy gindi bala ngaa bëgg kenn yàlla nee na bëgg ma ndax bi la kenn laataa bëgg maa la jëkk bëgg bi kenn laataa bëgg yàlla nee na maa la jëkk bëgg comme booy gimbi rek delloo ma loolu jëlal mbàttu delloo ko ca ndaala te mooy bala ngaa bëgg kenn bëgg ma man man yàlla soo ma bëggee man yàlla jox ma noonu nag loolu ma defoon ci yow te mooy sopp la tegal ma ca say wayjur wa qada rabbuka an laa taabudu illa iyaahu wa bil walidayni ihsana tegal ma ca say wayjur fonkal ma say wayjur rëyal rëyalal say wayjur yëkkatil say wéyjur kaweelal say wéyjur yàlla nee na del sax ci di ñaanal say wéyjur moo xam ñu ngi fi ñoom ñaar moo xam kenn ki dem na bàyyi fi kenn ki moo xam ñoom ñaar ñëpp dem nañu yàlla nee na ba ba nga may fekk si dee ma ñaan ma lay jéggal di jéggal say wéyjur nañu la yiire woon yore woon la ko ba nga nekkee di ndaw imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma la taqul lahuma uffin yàlla nee na bu leen wax mbas mukk sa xol bi bu mu yëg mbas bu mu yëg mbas mukk ci sa kanamu ndey ak ci sa kanamu baay yàlla nee na bëgguma ko goree lu tax bëgguma sa xol bi yëg mbas waxuma la nga wax mbas de wax mbas ëpp na waaye sa xol bu mu yëg mbas ndax bëgguma ko goree di ndax danga nga toll woon ci waxtu yoo xam ni mbas rekk moo jekkoon ci yow te wonuñu la ko waxunu la ko wonuñu la ko waxunu la ko kon nee na bul goreed yow tamit te li nga jële ci ñoom benn tuutiwu ci te dafa rëy ndax yi ëppoon solo ñu indiwaale ko woon ci àdduna bi ñuy ñëw yàlla jox leen ko yow bi ngay ñëw indiwoo ci yooyu benn danga leen fekk ak ñaar yooyu mooy xel ak doole xel ak doole yow indiwoo xel indiwoo doole ca berceau ba nga tëdd nga leen di roñ ci xel ak doole bés bu jot mel ni yàlla subhaanahu wa taala dafay dem ci ndey ak bàyyi dagg fa tuuti xel ak tuuti doole ñëw fekk la ci berceau bi def ko ci yow dagg tuuti ci yow ñàkk xel ak ñàkk doole séddale ko ndey ak bàyyi bés bu jot nga leen di roñ ci yooyu di leen roñ ci yooyu ba la nekkoon ci ñoom ci xel ak doole toxoo ci yow lan nga ñëwaale woon ci ñàkk xel ak doole toxoo ca ñoom kon lu fay des naqari deret rekk a fay des ndax bagage yu toll noonu ku ko jël ci nit roñe ko noonu ba mu jeex naqari deret lay dese yàlla na na supporter ko supporter ko yanu ko muñ ko sa xol bi bu mu yëg mbas bu leen gëdd de yàlla nee na boo leen di gëdd may ci yow bu leen gëdd te bu soxol bi yëg mbas te yàlla nee na garaat yoo mën a am daraja joo mën a am noo mën a toll ci sa kanamu wéyjur wàccel ci suuf toroxlu rekk wax fid lahuma janaha dulli min arrahma wax fid lahuma janaha dulli min arrahma sukkal ci seen kanam suufeel ci seen kanam fa ngay toog sax bu mu gën a kawe fa ñuy toog toroxlul ci seen kanam yërëmtalul ci seen kanam ci la la yàlla di yërëme te nag sa gémmiñ gu bu mu selawati ba ba may fekki yàlla nee na waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira yàlla nee na deema ko wax ba ba may wuyu si yow sama boroom yàlla na nga yërëm sama ndey ak sama baay nañu ma yëre ma woon yiree woon ma ko ba ma nekkee di ndaw rabbi gfir li wa li walidayya rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira loolu foo jullee suba tisbaar tàkkusaan timis gee bala ngaa jóg wax ko rabbi gfir li wa li walidayya rabbi irhamhuma kama rabbayaani sagira yàlla ko santaane yàlla wax ni kuy doom dee ma wax lii ba ba nga may fekk si kon nag képp koo xam ne yaa ngi koy matalee noonu di ko defa noonu ba ba nga koy fekki boo ko fekkee mu boole la ak ndey ak baay yëpp dugal ci biir yi mandim ak i njëgalam tàbbal leen aljanna yàlla na ko yàlla subhaanahu wa taala boole defal ci daraja yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama waaye sunu imaam de xam naa ne yitti tabaarakallaahu moo ko jàpp ak soxla yi waaye la mu diggoon mu nga ca de embouteillage yeeg xataay bi xanaa rek mu wax nuyu mbooloo mi rek te ñu doon di jox rendez-vous léegi incha allah ci ci télévision bi YouTube ku ko seet rek Mourchid euh, euh, euh, TV Safina Safina TV <laughs> Safina TV ku ko jàpp léegi ci midi boo abonné di ngi gis imam Hadja Abdoulaye Mbaye incha allahu taala ñu séqi fa jotaay imam nu yoolu tañu dem fa la ci télé ba alhamdulilah rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi ajmain wa radiyallahu an ittaabiin wa taabii taabiin wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi din assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu aleykum boobu wa rahmatullahi wa barakaatu moo ubbi ba toog ñi tegaat ci fi saa si beneen asalaamaaleykum wa rahmatullahi bu tàggatoo tàggatoo bu dul tàggatoo nekk imam Moussa di waxee eh, tabarakallah ñu ngi doon dégg a ngay jaamu bi lu tawxiitee noonu rafetee noonu seddee noonu xol di yóbbu noonu nit ki ci boromam macha allah ndax al alxikmatu tadxulu kama taxruj xikma ni mu génne noonu lay duggee xamoo xamoo ne fi mu ne xale yi niñ bëggee jaama ngay jaamu mag ñi noonu lañ ko bëggee mais ni ko mag yi noonu lañ ko bëggee nga gis ku tëj néegam di ko déglu rongañam di tuuru te kooku du àdduna lii moom ma jooyloo sañu ko kon alhamdulilah rabbil alamin eh, ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ziar nag xadar bi xadar bi mooy adara Cheikh El Hadj Omar al Fouti radiallahu taala anhu ak njabootam yëpp di nuyu Thierno Hamidou dégg nga eh, macha allah Hamidou Ousmane baan macha allah di nuyu Seydou Ousmane eh, dégg nga Cheikh Mouhamadul Bachir Cheikh Mouhamadul Bachir macha allah xalifa bi di nuyu bu baax imam Moussa Ousmane <laughs> imaam Hamidou Bane Ousmane imaam Moussa Gueye Ousmane. <laughs> tabarakallahu macha allah ak sunu techniciens yu baax yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu imaam jërëjëf Mbaye. macha ñu ngi lay bégee. imaam dama masa laaj bala ñoo tàggoo. <laughs> sama waajur xam nga lébu. mu muse muse lay wax. man ñi ma daan wax muse. lébu muse lay wax. dëgg la. Moussa. waaw nga mooy Mousse. Mousse waaw dëgg la. Mousse gi nag xamoon lu mu. Mhm. ma am bés. Mhm. sama waajur di ma attaayaloo. Mhm. ma koy attaayal di yóbbul kaas bi. bi ma ko yóbbul kaas bi nag. ma bindaale benn kayitu yóbbaale ko jox ko. ni ko summiitu yaa abi Moussa am summiitu Mousse. maa di Moussa kalimullahi rahmaana. nawir liyal isma xaqan yaa abi takallam ndax turandoo dafa doon lu rëy ca rahmaan te laa yastawi ismu Moussa yaa abi wa Moussa <laughs> man laaj la tey ñaari turi yi ban nga tuddoon <laughs> jox ko kaas ba bàyyi ko kayit bi bi may jëliwaat kaas bi <laughs> mu tontu ma ni ma sa alte nii lu di saw tur yab na Ousmane wallahi ismuka Moussa wóor na rahmaana allahu akbar allahu li ma nag usika ilman wa dëban yam na usmaana mhm. moo gën ci ndaw ak ci mag lii wóor na rahmaana di ñaan nag ni yaa rabbi fajal bunayya aliman karaman te boole kook ñi mu bokkal ndey wa usmaana <laughs> macha allah macha allah macha allah allah waa ji sëñ bi laaj allah macha allah jërëjëf Mbaye jërëjëf kon nag maa ngi bég di la ndokkeel tamit ci dendale googu. dëgg la alhamdulilah waaw Thierno Hamidou Ousmane. waaw Moussa Ousmane. yàlla boole nu noonu nag. macha allah parce yàlla boole nu noonu nag. macha allah yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole nu noonu. allahumma amiin bi jaahi sayyidina Muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam. ah bu ko defee rek xanaa ñu jege ji barab ba. Mm-hmm, télévision bi léegi ci midi. Mm-hmm. Euh, Safina TV. Mm-hmm. buñ ko jàppee léegi bu ñu abonné léegi ba dugg ci incha allah daan jenoog sunu imaam bu tedd bu baax bi imaam alxaaji abdullahi mbaay ci xam-xam bu sell bi tedd ni seete fa tabaarakallaahu te ñu rafete ñu xam ko ci rdv ci firi yi mu firi alquranul karim sunu kilifa yëpp rafetlu ko fa tabaarakallaahu sunu xaaliqin kon moom la ñuy jàkkaarloo léegi incha allah ci euh, safina tv ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñu tàggoo kenn tàggoo bu dul tàggoo wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.